yi ñu exposé bëri na exposé nañ mondain exposé nañ king exposé nañ texan exposé nañ grenadino exposé nañ xeneens exposé nañ gerguero exposé nañ beauté allemand exposé nañ morigero même legs aussi exposé nañ ko parce que yi ñu exposé tabaar fakal la waaw suñu vision moom yaatu na wax dëgg yàlla liñ ci mën a wax daal mooy bëgg nan mu yaatu ba nekk entreprise nit ay nit ji ci daan seen doole ci li nga xam ne si vision la boo xam ne si mën nañ ko wax ci lu nu mën a wax mais suñu vision daal sore na ci parce que xam lépp wax lépp baaxul waaw waaw ñoo ngi Nord Foire boo jógee ba ci SD bi rek boo jaaree droite boo day après ay 200 mètres rek foo laajte foofu dinañ la ko wan. waaw danañ importer li ëpp ci suñu pigeon dañ koy importer pratiquement yenn saa yi nag ñu am sujet bu ñu manqué. xool suñu mën boroomu éleveurs yi ku ñu wóolu liggéeyam jël ci moom mottali waa xanaa di santaat yàlla suñu borom bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax di ñaanal mbokki éleveurs yi nga xam ne si ñoom ñëpp exposé woon nañ fii yàlla defal leen tawfiix tey ñaan yàlla ñu dajawaat fi beneen daje mu gën a yaatu gën a rafet gën a neex yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Al تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم